sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokk yi Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baal seen mbokku Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad la di leen ñaanal jàmm ak tawféex di leen invité ngeen abonné ci kanaal bi nga xam ne ne eh, yéen ñi nga xam ne ne yéen a bëgg njariñ bëgg fee jariñ ñu ngi leen di invité ci canal bi ngeen abonné ndax bu ñu waxee canal bi moom canal bi wàllu njariñ rek lan fiy jàngale wàllu njariñ rek lan fi eh, xamale moo tax bëgg na ñëpp taxaw si mm, abonné si nga xam ne ne saa boo demee ba nekk si jaaxle rek boo duggee si canal bi eh, sa jaaxle boobu dañ moom moo tax moom leen naan def gis def gis si biir canal bi rek la am moom moo tax te seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad moom mooy def vidéo yu am solo yoo xam ne ne ñëpp danañ si mën a jariñu ndax kanaan bi dafa yéeme lool tey nag ñi ngi waxtaanee waxtaan bu am solo waxtaan boo xam ne ne day jariñ góor jariñ jigéen lépp nag muy waxtaan boo xam ne ne wàllu nettoyer yaram la wàllu génnee jafe-jafe bu nekk ci yaram la wàllu ubbeeku la waaye tamit wàllu kaaraange la ndax mbiri aw yaram dafa dafa doon loo xam ne ne nit ki war na nekk si yaramam sàmm ko ba nga xamee ne ne ndax jamono ji liggéey yi dafa bari cat yi dafa bari àndandoo muy wàllu àndandoo muy wàllu rab dafa bari te nit ki il faut que li nga xam ne moom moo la siy mujjal nit ki jéeme xam lan mooy ay saraxam di ko génne ndax sarax toujours ma leen di wax wàllu sarax nit ki tey jii bu nekkoon si néegu sëyam sax amagu jëkkër gi problème coow nangam coow nangam nii bu xamee saraxam la génnee ko yàlla mën naa def coow loola yam foofa moom moo tax toujours mën naa leen sarax da ngeen koy war xam nit ki ak loo mën di lijjanti si àdduna da ngay xëccoo terrain da nga bëgg a dugg si mbir na nga xam lan mooy sarax ba nga fexe koo génnee doog say dugg ndax sarax dafa doon loo xam ne ni moom mooy dooleel doomu aadama bi nga xam ne lu mu dugg rek yàlla da ko si may nam moom moo tax sarax moom dafa yéeme tey nag dinaa maye benn sarax boo xam ne ni anniversaire la benn sarax boo xam ne ni képp koo xam ne ne am nga aajo boo ko defee sunu borom dana la dimbale si loolu ñuy saraxu anniversaire boo xam ne ni moom dafa yéeme lool sarax bi nag na ngeen wut juróom-ñaar maa ngi ne képp ku nekk si ay wala nga nekk si xat-xat bu mu mën a doon nga bëgg génn si xat-xat boobu fexeelewut gerte xotti gii nga génnee ko nga saraxe ko bu dee ñetti kilo na nga ko saraxe bu dee nag aajo boo xam ne dafa rëy rëy lool xamoo aaja ba na mu kii nga bëgg yàlla def aaja boobu baat ak tontu na nga wut trois cent soixante huit tàndarma trois moom ngay wut boo ko wutee tàndarma bu nekk nga jàng si sallallahu ala muhammad teg sallallahu ala muhammad teg ba trois cent soixante huit yépp mat boo paree loolu nag nga koy saraxe aajo boobu foofu nga ko foofu lay yem aajo boo ko def rek aajo boobu sotti muy jigéen gi nga xam ne dangay wut boroom kër wala góor gu ñëw dem wala góor gi nga xam ne dafa am aaju pour soxna wala aaju pour liggéey na ko def bu ko defee rek yàlla dana ko jox liggéey moom moo xam ne ne moom lépp loo xam ne ne dëgëroon na si moom bu ko defee suñu borom ne na ko sutura mbiri ubbeeku si lim bi mooy biteel boobu ñu leen doon wax muy biteel bi nga xam ne ne Euh, six la lay garanti ah, du cat du làmmiñ du liggéey waaye tamit képp ku la liggéey day delluwaat si kawam moom moom bu sax sonn ku la mën a kort wala mu liggéey la liggéey bu bon bu mën a doon boo sangoo biteel bi benn fan liggéey ba toj na nga sangoo ko juróomi fan bi leene nga sa yaram six mois yoo xam ne ne du liggéey du làmmiñ du dara loo xam ne day dugg sa yaram lépp lu la waay def day këpp waa si kawam bii moom ñu bari xamoon nañ ko si ñun nga xam ne ne moom jafe-jafe boo mën a am wala da tiit si dara wala sa yaram tilim lool lool lu ne nga siy sentir nga xam ne guddi gi doon nelaw fexee la jël butéel bi nga xool benn yoon nga koy sangoo mu nettoyé sa yaram li nekk sa yaram yépp mu génne ko nga sangoo ko cinq jours mu bileene sa yaram nga xam ne ne dara dootu duggati sa wàllu yaram kii mooy butéel bi nga xam ne moom ñu bari doon nañu ko laaj fan yi incha allahu rabbi defaraat nañ ko képp koo xam ne euh, soxla nga cabinet bi am na bu nekk parcelle ak fii nga xam ne moom mooy Fass saala boo leen wootee si numéro téléphone yooyu rek incha allah rabbi daal leen taxaw si lépp loo xam ne ni rek daal leen si taxaw dimbali leen si incha allah rabbi